ñaan suñu borom subhanahu wa taala mu nangul ñu ci jaamu yàlla yépp di ñaan mbokk yi nga xam ne demoon nañ ji joxe faratay suñu borom ji di aj màkk yàlla nangul leen te delloosi leen ci jàmm di ñaan suñu borom subhanahu wa taala mu sàmmal nu suñu kilifa gi Cheikh Mouhamadou Mountakha yokk aw fanam yàggal ko fi lool te yokkal ko ak wéram ba mu àggale ay yéeneem yépp ñuy dellusi rekk rek <clears throat> di fàttalente lu jëm ci bis bu màgg bi ñu génne muy bisu tabaski doon nag bisub xéewal doon bisub sant yàlla doon bis boo xam ne bu bari bu fees dell la ak ay maanaa ndax li ci xewoon muy jàngale gëm yàlla jàngale wóolu suñu boroom jàngale muñ jàngale topp suñu borom subhanahu wa taala topp ndigal waaye mu doon bis boo xam ne nag bokk na ci lim nu war a fàttali nun doomu adama mooy teral gi yàlla teral doomu aadama ak xéewal yu yaatu yi ko defal ndax suñu borom subhanahu wa taala dafa teral doomu aadama tàgganal tàggatal ko li ci diggante asamaan ak suuf lépp rekk ci mbaaxug suñu boroom ci la ko tàggatalee doomu aadama ba tax doomu aadama mën a jël mbindeef ne moom yorug ruux mu man koo lewetal man koo jëfandikoo ba noppi dara du ko ca fekk suñu boroom sax da ko cay fay da ko cay yokk tuyaaba kon loola taraanga féetewu ko kaw kon yàlla teral na doomu aadama lool ba tax lépp lu nekk ci diggante asamaan ak suuf ma sañ koo jëfandikoo ci lu neex yàlla yàlla mu wax ne alam tara anna allaha alam taraw anna allaha saxara lakum maa fi samaawaati wa maa fi ardi wa asbax aleykum niamahu zahiratan wa batina suñu boroom subhanahu wa taala moo ñu tàggatal kon li nekk ci diggante asamaan ak suuf yaatal ay xéewalam ci loo xam ne luñ mën a teg bët la ak loo xam ne sax mëne su koo teg bët kon nag doomu aadama war nay gis nga neel li ko yàlla defal doomu aadama war nay gis teraanga ji ko yàlla teral doomu aadama war nay yëg xéewal yi ko suñu boroom xéewale war na ko ci sant it waaye la gën a am solo ci sant yàlla ginnaaw sant giñ koy sant ci suñuy làmmiñ di ko sant ci suñuy xol di yëg ne moo nu defal xéewal yi nu am la gën a kawe ci sant yàlla mooy nekk ci li mu bëgg nekk ci ndigalam di moytu ay tereem di ca góor-góor lu nu man kon doomu aadama war nay xam bu baax lu ko indi ci kaw suuf mu nekk ca ngir sante ko yàlla mi ko teral te li ñu taxa li tax suñu borom sàkk nu wàcce nu fi la ca jiitu mooy jaamu ko jaamu gu sell ak àdduna bii ñu nekk ñu liggéey ko jagal ko defar ko ba man fee nekk kon wa maa umiru illa li yabudullaha muxlisina lahu ddin wa ma xalaqtul jinna wal insa illa li yabudun waaye nag huwa anshaakum min al ardi wa staamarakum fiha kon suñu boroom mission boobu la jox doomu aadama muy jaamu ko ak liggéey àdduna bi defar ko jagal ko ba man fee nekk di ko jaamu loole nag yitte la joo xam ne moom la jullit bu nekk war a teg ci kanamam bàyyi ko xel waaye war a xam ne it kon lépp luy tax yitte jooju mën a sotti lépp luy tax nit mën a jaamu yàlla jaamu yàlla ku sell mën a liggéey loola war nañ koo bàyyi xel dafa bokk nag ci li tax nit man loolu muy charte boo xam ne munta ñàkk mooy jàmmu am ak dal am ak kóoluteef am kon jàmm sart la ci nit ki mën a jaamu yàlla jaamu yàlla gu sell ci ak dal ci akuk tal waaye sart la ci nit ki mën a liggéey liggéey bu am njariñ ci kaw suuf ndax saa bu dal amut jàmm amut kenn du tal leneen doo tala jaamu yàlla jaamu yàlla gu sell doo tala liggéey liggéey bu jaar yoon kon nag jàmm jooju nga xam ne kon ni jaamu yàlla nekk farata sàmm ko day daal di nekk farata ndax maa laa yatimul waajibu illa bihi fa huwa waajibun lépp loo xam ne dafa am lu war te balaa mën a am loola am loola day daal di war kon fexe ba jàmm am day daal di nekk warugar kon jullit yépp fu ñu mën a nekk bokk na ci yitte ji gën a kawe yitte ji ñu war a gën a yitte woo muy fexe ba jàmm am ca jàmm joojee ngir mën a jàmm yàlla ngir mën a liggéey moo de moo cay doon jubluwaay ba suñu réew mi it kon jullit yépp war nañoo bàyyi xel jéem a def yitte ci sàmm jàmm ji fi nekk aar ko ba dara du ko xajamal dara du ko yàq xam nañ ne ñu ngi jublu ay xew-xew yoo xam ne léeg-léeg fitna daana ciy juddoo te muy ay wote yi nga xam ne fii ak ñaari ay bis nañ ci yegg mu doon loo xam ne léeg-léeg ci ay réew mën na faa jur fitna mën na faa jur ak daladi mën na faa jur ay yëngatu yoo xam ne ay yàq mën na caa juddoo bu ñu tollee jamono jooju day jaadu kon ñuy fàttali ne jàmm sàmm ko day farata lépp luy tax mu amit day daal di doon farata kon bu ñu tolloo ci waxtu woowu day jaadu ñuy fàttalente ne kenn ku nekk lay sa warugar nga def ko ba jàmm ju ji ñu suñu boroom xéewale ñu mën koo sàmm te loola kenn ku nekk da ciy am wàll ñi nga xam ne ñoom lañ dénk baat ñu war a saytu war a mbir yépp nekk ci seen loxo am nañ ci wàll seen wàll mooy fexe ba lépp luy am am ci ak maandute am ci ak leer am ci ak set ba xel yépp dal ba ñépp am kóoluteef ci mbir yi na muy tëddee loola bokk na ci liy tax jàmm mën a am waaye ñi nga xam ne ñooy wutit di sàkku ñoom ñépp ñu yëg ne seen warugar la seen responsabilité la ci jàmmu am ba tax réew mi mën a jëm mën a liggéey ñu war a jaamu yàlla mën a jaamu yàlla kenn ku nekk yëg ne am nga ci wàll loola bu amee nit ñi it ci seen bopp ñoom it ñu mën a am ak dal mën a am yar mën a am teggiin kenn ku nekk nekk ca la war dala war boo demee ba war a jooxe sa farata ji nga seq ak sam réew nga def ko ci jàmm ci ak dal ci ab yar delluwaat loola mooy tax jàmm mën a am waaye ñépp yéene lu baax yéenente jàmm ndax lépp loo xam ne mooy nekk ci xol yi rek mooy feeñ ci doxaliin yi mooy feeñ ci nekkin wi kon kenn ku nekk ëmb jàmm jàmmi réew mi ëmb aw yiw loolu bu amee rek jàmm dana daal di mën a am ñuy fàtt war a fàttaliku nag njàngaleem yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci lépp loo xam ne nit a ngi koy sàkku di ko wut ndax li ñuy yonent bi alayhi salaatu wasalaam jàngal mooy nit lu muy wut da ko war a wut ci ak dal da ko war a wut ci teey da ko war a wut ci ab yar yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo wax ne inna allaha rafiqun yuhibbu rifqa wa inna allaha yuti ala rifqi ma la yuti ala al unfi suñu boroom subhanahu wa taala nit ku ku ku bëgg ak dal la ku bëgg ak teey la te yàlla dina jox nit ki ci ak teyey akuk dal loo xam ne du ko ko jof jox ci aw ay ak fitna ak xët-xët kon dal googu ak teey googu dañ koy sàkku ci ñépp ñiy wut ak ñi nga xam ne ñooy saytu mbir yi kenn ku nekk war a ak dal ànd ko teey ba lépp li ñuy sàkku ku ko ci suñ borom jox nga xam ne suñ borom mooy joxe nit ki li ko war mooy sàkku te rafetal na muy sàkkoo te sax képp kuy sàkku lu jëm ci loo xam ne ñépp a ko bokk ak dal rek akuk teey moom la la suñu borom subhanahu wa taala digal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 وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد rasulullah ashhadu anna muhammadan rasulullah hayya ala salat السلام xam yaa ngi wut war ngaa ci ak dal ak waaye képp koo xam ne it dénk nañ la lañ la dénk war nga koo yor ci ak dal ak teey ak yërmande ndax yonent bi alayhi salaam dafa ñaanoon ne yow yàlla képp koo xam ne méngoo na dara ci sama xeet wi yërëm leen ànd ko ak dal ak teey yàlla nanga ko yërëm na nga ko jàppale ci ak dal ak tey waaye képp koo xam ne méngoo na dara ci sama xeet wi taral ci ñoom yow suñ boroom yàlla na nga taral ci moom wax ne allahumma man waliya min ummati shay'an fa rafaqa bihim farfuq bih wa man waliya min amri ummati shay'an fa shaqqa alayhim fashquq alayhi te lépp loo xam ne dañ ko saytu ci anam gu dal anam gu teey loola day taaru waaye lépp loo xam ne nag ak dalaku teey nekku ca loola day ñaaw te loolu yonent bi alayhi salaatu wassalaam ma ko wax ne maa kaana rifqu fi cheyin illa zaanahu wa ma nuzia min cheyin illa shaanahu moo tax yonent bi alayhi salaatu wassalaam dénkaane woon ne yow maa ngi lay dénk yow jullit bi lépp looy yëngatu nga yëngatoo ko ci ak dal akuk teey waaye moytu lépp loo xam ne fitna la ak wax ju ñaaw wala jëf ju ñaaw alayka bir rifqi wa iyaaki wal unfa wal fuxsha kon mbokk yi bu ñu tolloo ci jamono yii kenn ku nekk war nga xam lay sa àq ak lay sa warugar ku nekk sañ naa sàkku ñu wóolu la fal la nga ngay waxal askan wi di leen doxal di leen jottalil seen aajo su fekkee ne yëg nga ci sa bopp man-man boobee ndax loolu moom diine nangu na ko ndax suñu boroom mi ngi ñuy nettali sayidna yusuf alayhi salaam ba muy wax ne qaala jaalni ala xazaini al ardi inni xafizun alimun koo xam ne am nga jikko yu ko mate am kàttan lu ko mate am xam-xam bu ko mate sañ nga laaj ñu wóolu la dénk la te loolu nag bu dee sa aq waaye nag booy sàkku kon day daa war na ngay sàkkoo nga sàkkoo ko ci anam gu rafet anam gu sell ndax loolu yonent bi alayhi salaam moo ko digle wax ne yéen nit ñi na ngeen ragal yàlla te rafetal seenu càkku yaa ayuhan naasu ittaqullaha wa ajmilu fi talabi ragal leen yàlla mooy góorgóorlu leen ci ndigalam yi ak tere yi di ko bàyyi xel moytu lépp loo xam ne tere na ko di góorgóorlu ci lépp lu digle di ko sedd ci lépp lu ngeen di yëngatu di ko bàyyi xel te loola nag ku ko def looy wut da ko rafetal te xam ne suñu borom subhanahu wa taala moom mooy maye. am na beneen xadis boo xam ne dëkk caa wax ne ajmilu fi talabi dunya fa inna kullan muyassarun lima xuliqa lahu na ngeen rafetal ni ngeen di sàkkoo seen mbiri àdduna ndax kenn ku nekk la yàlla bind ci moom dana dana ko ko yombalal lool te kon àq ci ñi nga xam ne nag nooy nit ñi nga xam ne ay jàmbur lañ ñu am ak dal sañ a dund ci dal mën a liggéey mën a jaamu yàlla ñu sàmmal leen ko seen àq la kon dal kenn ku nekk bu ñu tolloo fii war ngaa bàyyi xel la suñu borom subhanahu wa taala digal yonent bi alayhi salaatu digal la ko te mooy nga def sa warugar te bàyyi xel ñeneen ñi ci des bàyyi xel ak jaamu yàlla yi nga xam ne ñoom dañuy jaam dañuy jaamu yàlla di liggéey seenub liggéey te loolu moom lañu suñu kilifa yi digal moom lañuy fàttali waxtu wu nekk ñuy fàttali jaamu yàlla yi ñu sax ci ak jub sax ci ak maandu sax ci ak dal waaye di def loo xam ne luy indi jàmm la saa su nekk moytu lépp loo xam ne fitna la ndax réew mi kat kenn moomu ko ñépp a ko bokk te ñi nga xam ne sax dañuy wut baat seen warugar mooy ñi yëg ne dañuy liggéeyal askan wi waaye du ne ñoom ñoo réew mi ndax ñi yëngatu ci wàllu politik di ko sàkku ak bëggootee ñoom ñépp buñ xooloon ci réew mi lim bu néew lañuy doon lu baree bari ñu ngi ci réew mi di dund di jaamu yàlla di liggéey ñu war leen a sàmmal seenu àq seeni àq war leen a sàmmal seenug dal googu te wut jàmm nag ak sàmm ko warugaru jullit yépp la moom ndax yàlla moo ko digle yonent bi digle ko waaye rawatina koo xam ne taalibe sëriñ Tuubaa la kooku moom lépp loo xam ne fitna la da ko war a moytu da ko war a daw ndax sëriñ Tuubaa am njàngaleem lépp da koo teg ci jàmm da koo teg ci ak dal teg ci ko ci wóolu suñu borom ak dellu ci suñu borom ak di tuub loolu rek la daan digle saabu ay fitna ma saa juddu it day delloo taalibe yi ci yàlla de leen ñu tuub loola nit ku nekk lam cay wane mooy kenn ku nekk sa bopp nga war a tàmbale sa bopp nga war a xool xool ba xam yow li lu la war nga nekk ca bu kenn ku nekk defee noona rek jàmm rek kay am te sëriñ Tuubaa radiyallaahu waxoon na ne inna salaamata wal aafiyata xayrun min aksihima aafiya ak jàmm mucc ak jàmm nee moo gën seenub safaan te mooy fitna ak ay am na dénkaan loo ne da koo dénkaane wax ne ki bind araf yii mu ngi koy jëmale ci képp koo xam ne gis nga ko muy ak laabire goo xam ne képp koo xam ne teg nga ci sa bët rek laabire ga yaa ngi ca biir te mooy bàyyi lépp loo xam ne day indi ak yàq indi fitna waaye góor-góorlu ci lu baax góor-góorlu ci tuub ci mbooleem rëcc-rëcc yi mu ne nag loola ndigal lii nag ku ko topp muy laabire gi ku ko jëfe kooku day ab murit la waaye képp koo xam ne ko kooku day marid la muy ku fetteerlu ko wala wala yaasu billah yaan ci àlla musal mu ne min kaatibi haadihi lxurufi ila kulli man sa yaqifu alayha nasihatun wa hiya tarku kulli muaddin ila tazalzuli walfasaadi wal fi lxayraati wa tawba min jamii alhafawaat mu ne fa man imtasala fa huwa dammi wa man lam yamtasil fa huwa maridun bil bokk na ci màndargay ak taalibi gu dëggu nag mooy jëfe ndigal bu sa bakkan jëmee ci lu wuuteeg ndigalit nga moy sa bëgg-bëggi bakkan ak sa bànneexu bakkan topp ndigal la nga xam ne moom lañ la digal kon loolu lañ bëggoon a fàttali fàttali nekkat li ñu fi indi mooy jaamu yàlla ak liggéey te lay tax loola mën a am fokk jàmmu am kon waru gar la ci jullit yëpp waru gar la ci képp koo xam ne yaa ngi ci réew mi ngay wax ak dox ak a yéene ci loo xam ne day indi jàmm ak ku ñu ñaan suñu borom subhanahu wa taala mu defal réew mi jàmm defal ko réewu jullit yëpp lépp loo xam ne aw ay la mu mooyale ko réew mi mooyale ko jullit yi di ko ñaan suñu borom subhanahu wa taala mu sàmm suñu kilifa yi sàmmal ñu Cheikh Mouhamadou Mountakha yàggal ko fi lool te wéral ko salaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.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 rasulullah الحمد لله الذي أمر ووعد ونهى فأوهد فسارع أولو النهى إلى امتثال أمره واجتناب ما عنه نهى والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد أفضل من هدى إلى الله تبارك وتعالى وأرشد وعلى آله وصحبه الذين اختاروا الدار الآخرة الباقية على هذه الدار الفانية وعلى من تبعهم بإحسان إلى اليوم الذي يجازى فيه بعمله كل إنسان أما بعد فيا عباد الله ittaqullaha wa xudu xidrakum min aadaikum wa ahda ahdaikum nufusukum allati bayna junubikum waalamu anna addunya qasiratu lamad wa ma alxayatu addunya illa mataaul gurur fasrifu himamakum an zahratiha allati kal adam wa wajjihuha ila mawlaakum alladi awlaa bikum tafuuzu binnaimi almuqiim alladi acaddahu li awliyaaihi وتنجو من العذاب المقيم الذي أعد للمعرضين عنه وعن أصفيائه الحمد لله الذي هدانا للكتاب والسنة وأخذ علينا ميثاق الاقتداء بما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنه نشهد أن لا إله إلا الله الذي ارتضى للإسلام دينا ومن علينا إذ بعث فينا نبيا أميا أمينا أما بعد فيا أيها الناس إن الدنيا قد آذنت بالانصراف والرحيل ووضعت ووضع ووضحت علامة فنائها فلا تحتاج إلى برهان ولا دليل فالأحمق من ملكته فاشتغل بما فيها من حقير ودليل والعاقل من أعرض عنها فجعل إذا قال فيها ظن أنه لا يبيت وإذا بات ظن أنه لا يقيم يواظب على سنته ويلازم ويجتنب كل بدعة وضلالة وكل ما شاع في الولائم ويترك ما عم وشاع في هذه الأزمنة من المناكر عملا بمقتضى قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وبقوله تعالى وما آتيكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وفقنا الله وإياكم فيما رغبكم فيه نبينا المصطفى الكريم وأكثروا من الصلاة عليه والتسليم يغفر الله لنا ولكم وللمسلمين آمين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 allahu akbar sami allahu liman hamidah rabbana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 حجابهم ثم إن علينا حسابهم الله الله أكبر سمع الله لمن الله الله asalaamaaleykum. asalaamaaleykum. min jamiihil adaawa kulli lahiini saarif alhilmati li rabbi taala راجيا ساق يهو بهما معيني ماسكا بالكتاب ماسك درير بيد الخائن البصير المعين وهو عندي ورماتي وكنوزي وبه أرتجنقي يا ذا الحروني من به راب مرودسا بن حنيد قد طائع له أمرني وهو فخري وعروتي وجليسي بأحاديث ذي المزايا المكين أحمد الحامدين مدى خوزي ولربي بدعوات الكركوني يا إلهي عليه صل وسلم مع للوى لليقين من صحاب تبته له لوكيل قد هداهم بنور حق اليقين رب هب لي استقامة وانطلاقا بالمراضي والتم عني نفيني يا إلهي يا من عليه اتكالي فك كبلي بروض أهل سفيني عجل الفات حاول تجود بفيوض مخجلات سكبا سيكا بالدجون ربي وافكك أسري ورهني فإني بذنوبي مكبل في سجوني ربي إني عبد كثير المعاصي فالمعاصي حائي وبائي وسيني ربني رب رقيني رمشاني zakkilin no na xam la fa in wasini xallini rabbi xallini bil masaaya misla chinin min qablihimi min wachini listajib daawati bihima faqadanni wa bima faqa rabbi kulla gununi هبلي الكشف ذعول من وسعي وامحو عني ما كان مثل جنوني هبلي اليوم يا إلهي رزقا صف لي كالكلي بغير ريوني واعف عني وعني يا مل حقوقا للبرايا والتقدي عني ديوني waltajoon li bi an akoona xadiman lil kitaabil adiidi